jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo ITFA Islamic Tijaniya Foundation of America rajo ITFA doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo ITFA yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci te rajo ITFA mu ngeen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo ITFA daal rajo bu wóor tey leeral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 bu sunu mam Habib si bu sunu mam maudu malik si si malik ñu ngi koy ziar bu baaxa baax di ko jox waccu di ko di nuy bu baax sunu yaay xajaama jigen sek si di ziar mbolo mi ñu fi ñep ma sha allah di wax rek itamit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di len jall bu baaxa baax li nga xamantene mom lañu bok ñun ñep di len ko jall di ko sunu suñu waye tabarakallah dafa melni seigne Mamour ak sina ma ko allah mu exi dal di jàll jokkil programme seigne Mamour bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah soxna Madou jërëjëf. si waaleykum salaam wa rahmatulah. leen di ziare yéen ñëpp euh, di kontaan di ñëw fii si li nga xamante ni mooy programme bi alors euh, bu euh, sëriñ Pape ñoom la ñu àndal si plateau bi tey ak soxna Madou mi nga xam ne moo doon wax noonu donc sëñ Pape ñu andi la nga jox ñu programme ITFA comme ça ñu continue sëñ Pape. sëñ Mamour xam naa di nga am surprise man ma remplacer Pape tey ma ngi di nuyu ñi nga xam ne ngeen si euh, panel bi di jël nuyu bi di ko teg si suñu loxo sëriñ suñu wasila suñu wéeruwaay euh, Sidi Ahmed si mu suñu Habib mu suñu maam Sidi Haj Malik jël nuyu bi tam ba tey tegaat ko si loxo soxna ma jigéen mu leen ko si panel bi yëpp. jërëjëf euh, soxna Khady sa wax ji na yooyu programme yooyu dañ koy wéyal almost every week euh, kon nag ñu déggee ko noonu ñi nga xam ne ñoo si am interest mun na ñëw reach out ci numbers yooyu nga joxe. donc sans plus tarder damay dem rek euh, delloo kàddu kàddu gi soxna Madou soxna Madou su ko defee moomu dalal ñu kan nga xam ne moom la ñu am tey soxna Madou bisimilah. jërëjëf Haj Mamour macha allah euh, jërëjëf soxna Xadi ñu ngi leen di ziyaarwaat bu baax a baax a baax waaye tabaarakallaahu tey nag macha allah dañuy am mbégte di dalal koo xamante ne kilifa la macha allah ci wàllu littérature sénégalaise di romancière euh, recevoir prix yu bare bare macha allah ñu gën cee ràññee prix Abdoulaye Sadji en 2008 prix wu Claire l'Afrique en 2012, puis Ousmane Semben en 2016 et surtout

dans fecci macha allah damay euh, bàyyi soxna Rahmatou Samb mu daal di agsi incha allah andil ñu li mu ñu dencal soxna Rama bismillah. maa ngi sant ba lay nuyu euh, soxna Mado di la sant di remercier. soxna <laughs> sama kilifa may mag waay mosam ko parce que ku yàlla booleel ak surtout allah ji malik yaay kilifa gi leen maa ngi leen serigne Ahmed si suñu serigne suñu tonton <laughs> tonton di ko euh, félicité ci euh, liggéey bu qui def ci ITFA ñu koy def ak abnégation ak désintéressement avec beaucoup de succès parce que maillage bi mu def euh, bi mu réussir def ak ITFA b 33 d'ailleurs nekk ci États-Unis est un travail absolument extraordinaire et on le félicite pour cela. Mm-hmm macha allah merci euh, soxna Rama jërëjëf soxna Rama comme ni ma ko waxee léegi nii ci si ci début présentation bi nga doon jabaru diplomate euh, macha allah bu ñu diplomate euh, on voit par exemple que de yi macha allah yi nga jot def bari est-ce que mën nga ñu andil tout ci loolu. dëkk bi qui était euh, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. donc Nations Unies mhm. nga guerres, de guerre euh, à l'âge de 19 ans déjà la commencé d'y confronter à euh, communauté déplacée. parce qu'en fait quoi Immigration, immigration ba ma fa demee déjà la tase ak euh, réfugiés yi nga xam ne ñu ngi jógee Burundi ñu jóge woon Rwanda à l'époque c'était les réfugiés Tutsi ñi nga xam ne bi indépendance bi ñu wut indépendance waa Rwanda euh, guerre civile am fa léegi ñu sonal Tutsi lool ñu daw ñëw Burundi ñi ñëw Burundi ñi ñëw Kinshasa mm-hmm. léegi itam réfugiés yi nga xam ne ñu ngi jógoon Angola Angola ba nga xam mu doon def guerre de libération pour euh, am indépendance parce que nous, won une ci euh, colonie portugaise nous, nga des réfugiés. La mm-hmm. ay grande communauté ouest africaine nous doon les wax sénégalais mm-hmm. en fait c'est un nom générique bu ñu sénégalais rek dafa won comme tirailleurs mm-hmm. il y avait les sénégalais il y avait les maliens il y avait les nigériens mais comme sénégalais y a def les may bay rek sénégalais Noirs. donc euh, donc avons na Zaïre 5 ans de Kena Burundi, 2 ans, il y a le Éthiopie, moi j'ai fait 5 ans, Genève, moi j'ai fait 4 ans, Grèce, moi j'ai fait 2 ans, mhm. New York, moi j'ai fait 2 ans, et mhm. Burkina, Ouagadougou, à Guinée, 5 ans. Donc, je suis allé bari bari bari parce que je suis allé à la de que je suis Non seulement à communauté immigrée, mais à la communauté des personnes déplacées ou des réfugiés, guerre ou alors catastrophe naturelle molène euh, indi donc je euh, suis en tant que spécialiste mm-hmm. mais mon vécu li nga pendant 27 ans à l'extérieur mm-hmm. la peut-être euh, leerale mm-hmm. comme expérience personnelle mais non pas comme spécialiste de l'immigration <laughs> macha allah mu doon loo xamante ne dinañu soxal lool lool lool euh, euh, ba tey ci loolu ñu gis nag macha allah bindkat bu mag a mag nga ak loolu nga xamante ne jot nga ko dund ci dëkk yi nga wax léegi ni fan la euh, cofeelu bind bi fan la fan nga tàmbalee commencé décider nekk bindkat. <laughs> bonne question en fait affaire bindkat daal affaire bindkat daal def naa du ci wàllu décision booy jël. du ci njàng fo sa njàng fu mu toll la nga xam ne daal c'est un don de yàlla moo la koy dafa ma dañ la koy sol waaye mm-hmm. nag euh, Penda toujours loolu dama koy nettali dafay wax ne que mbind mooy jabooko diplomate buy dimbu dafa fipp ndaxte jawe diplomate souvent dafa jël carrière am teg ko fële mm-hmm. gunge soo jóg di ko jàppal yi carrière am léegi euh, par exemple ci ambassade yi euh, parce que ñaari façon une façon am ñi nekk ci ambassade yi ak ki organisation internationale comme Nations Unies mhm. les wa ambassade yi ñu droit am activité professionnelle les wa Nations Unies euh, amul loi bu de wax mais comme que suñu borom kër yi dañuy déplacer chaque deux ans chaque trois ans bo que quelqu'un de avec des études supérieures ou un cadre c'est difficile nga am parce que xam nañ que deux ans après bu demee ngay dem donc moo tax ñu nekk mën nañ la tere am une activité professionnelle mais kenn mënu la tere sa xel bàyyi sa xel di dem ngay image ay histoire di ko bind mm-hmm. écriture femme diplomate fipula mais man j'écris par devoir de mémoire parce que c'est une chance pour moi d'avoir été dans tous ces pays et je me mm-hmm. suis dit Sénégal il faut me binder li ma il faut ma nett li ma c'est un devoir en fait pour moi voilà donc écriture mom dafa dafa nek la nga xamne dal ken xamul daal fu muy mais nak il y a une grande part de travail il y a l'inspiration un don de Dieu il y a le travail pour nous pour les femmes c'est très difficile do am jot pour bind en général ñun ñu ngi bind guddi am sama benn xarit Fama Diagne sen qui est grand prix chef d'État Nena. que les femmes c'est quand les casseroles se sont tues c'est-à-dire bu ci bu ci ñi ce n'est pas facile. Euh, il y a une question de temps. Mhm. Euh, sous une maison d'édition et nuit publiée, amuñu tellement moyen. Vous mhm. savez, en France, par exemple, y et un prix au mag a mag comme mhm. Renaudot. mais prix yooyu boo ko maison d'édition yu a yi a gagné lu tax C'est l'écrivain écrivain fétiche bu ñu Boubaré ou bien bu moyen moom dañu jël par exemple un million de dollars de publicité. Mmh pour duggee métro titre livre baa ngi fi foo jaar une maison d'édition Vous bu ñu livres peut être 3000 exemplaires lañ koy def. moo mais non suñu plaisir moi d'être lu d'être lu même raay vous ñu ko joxee est important. ce n'est mmh pas xaalis bi dur parce que c'est un prix très très bien doté le président mmh a mis à 40 000 dollars. et euh, c'est la reconnaissance en fait. Euh, contentement de reconnaissance que et parce que grand prix c'est pas une chose aisée vraiment euh, candidats mon moo 66 mm-hmm. candidats yooyu mën na suis ay romancier ñu suis roman je na nekk ñu poésie je mm-hmm. na nekk ñu bind de pièces de théâtre a mm-hmm. des recueils de nouvelles nouvelles mooy ay comme ay histoire yu ndaw ñu une ko roman voilà donc 66 euh, euh, ouvrages vous aimez dafa am benn kuréel ba nga xam ay professeur université yu a mag a mag nga xam dañu mag ci choisir ku lire li son livres yi def note note de lecture ça à dire résumé tënk livre bi explique explique lan moo ci note orthographe bi note syntaxe note histoire bi léegi bu paree nous ñu defee euh, sélection Nous sélectionnons par exemple les 20 derniers et mhm. par sélection les dix derniers est que les nominés donc nominés yooyu nag ci les nag la ñuy tànnaat a def nag euh, vraiment man la ko mhm. donc ma le grand prix du président de la république et euh, c'est un prix important parce que même si constitution Sénégal bu les bi dañuy que euh, le protecteur des arts de l'Est c'est le président de la république donc suis protecteur Moi, je suis suñu parrain Je mhm. veux remercier beaucoup qui a fait le prix Bobo. macha allah comme euh, je l'ai dit tantôt loolu dafa nekk prix boo xamante ne que ñun suñu fierté la ñun ñëpp waaw donte yaa ko fa taxawal yaa ñu fa taxawal waaye macha allah encore une fois ñu la ciy félicité ci li nga wax loolu léegi nii ci roman yooyu nga xamante ne yooyu tamit ay xeetu bind bind lañ for nañ ci wayu nag nekk ku bëggoon roman nga aussi bi nga nekkee xale macha allah donc euh, euh, soxna Rama nga wax léegi nii ci mbirum. Euh, bind bi ci mbirum immigration donc macha allah ba tax tey nga bind ci euh, roman Fergo euh, mën nga ñu ci expliquer tout s'il vous plaît. légui affaire ou immigration d'accord donc sama ñaari ñetti livre yëpp sax mën na wax ne que rapport ak immigration parce que li ma demoon Éthiopie mo fekkee une révolution bu mag ba nga xamné en 1974 moo daaneel euh, empereur Haïlé Sélassié ak empire ba nga xam ne am na 3000 ans euh, am une révolution bu rëy rëy bu fa révolution ba nga xam ne une France en 1789 euh, aboli les privilèges ak bi Russie en 1917 parce que Éthiopie dafa un royaume ba nga xam ne dafa amoon ay classe sociale dafa amoon noblesse mm-hmm. am clergé am am les paysans les peuples et donc c'est la terre yi noblesse bi rek ñoo ñoo ci amoon accès légui mu am ben révolution ba nga xamné étudiants yi ñoo commencé woon après militaire yi jël ko après mu am ben dictature de Mengistu ma fekke ko légui sama roman bobu roman historique la cest à dire lépp la nga xamné dama koy dama koy nettali ci histoire ak ci politique dëgg la fa amone la mais ma jël ben création romanesque daal di ko ci daal di ko ci greffé donc di avancé donc euh, l'intrigue avance en même temps que l'histoire euh, réelle du pays léegi deuxième roman bi ndeysaan maa ngi ko jagle sama petit frère Dawour bi gaañoo fii États-Unis dafa immigré woon fii États-Unis mu tuddee ko du baobab au sagaro luy wane itinéraire la jógee guy gi baobab mooy symbole Sénégal sagaro mooy mooy gargamboose géant yi nekk Arizona te ñu di ko ci kiiw kobo yi mm-hmm. donc may may nettali parce que pour man adinam euh, dafa gàtt torop donc ma ma ma di ko jéem a xëccoo di ko yokk parce que di ko di ko di ko nettali lan moo xew Bargny avant que mu juddu lan moo xew après sa mort ma di ko nettali nag léegi émigration bi ni mu demee di ko wax ne léegi xale yi bu ñuy dem gaal la ñuy jël bukkutuñu sof Sénégal ñu ngi dem ci gaal léegi nag fergono carrément mooy immigration ba nga xam ne dama bëggoon a nettali immigration ba nga xam ne duñ ko faral wax moy immigration dans les pays africains parce que bo gisé témé immigrés. 85 85 ñu ngi immigré afrique ñu ngi côte d'ivoire mhm. ñu qui maroc ñu ngi gabon ñu ngi zaïre ñu ngi burundi ñu ngi angola euh et 15% ñoo nek mhm. europe amérique mais lolu duñ ko wax immigration mom dañu dañ wax comme dafa immigration moo tax boo demee Afrique du Nord. Mhm. naar yi fa nekk nekk fa. ça veut dire que ñu ngi jóge Méditerranée ñu ngi jóge Moyen-Orient ay seet ci temps yi califat bi lañ fa nekk. léegi Amérique bii ngeen nekk ay indiens rek ñoo fi newoon du Canada jusqu'en Amérique latine y avait que des indiens donc émigré yi mhm. ñëw Europe ñoom ñoo feesal Amérique nekk ay américains waa Espagne tam ñëw euh, en bas waa Portugal euh, Amérique latine donc mm. immigration yàgg na même Cheikh Anta Diop moy chercheur bu mag mag boobu ñu tuddee ko l'université mm-hmm. ay recherche né par exemple les yi ñu ngi jóge Égypte Égypte ñu ngi leen doon daan oowee les libou té ñom ñu daan oowee ñi nekk ci plateau yi kaw-kaw yi ñoo jóge Égypte wàcce traverse Sahara nekk mm-hmm. Fuuta yàgg nañu Fuuta am nañu fa 5 siècles wàcce dem Kayor dem Jolof donc bo gisee tam Afrique gep pël yi nekk presque fépp yëpp Mali kii ba Cameroun émigration la et boo gisee par exemple ñuy tutsi ay le lañu mais ñu la que pël mais ay le lañu xam naa ñu ngi jóge Éthiopie etc. donc immigration barina té te en ce moment les chiffres de la Banque mondiale disent qu'il y a 200 millions de personnes ya nga xam de dëkkuñu de dëkk dañu émigré mhm. boo gisee nak immigration moy déplacement population donc bonne immigration yaa ngi yaa ngi nekk wax ñi ñëw ñun ñi nekk Sénégal boo leen def dañ daan immigration donc migration moo nekk migration mooy déplacement population mhm. déplacement population nag mën na nekk déplacement ba nga xam ne c'est volontaire yow yaa bëgg a dem wuuti mais am na déplacement ya nga xam ne c'est pas volontaire lañ la bunta xal xatal nga génn sa réew mooy mhm. jox affaire réfugié mhm. les réfugiés mooy ñi nga xam ne dañu obligé génn seen dëkk ndaxte dañ leen di xeex di xeex seen gëm-gëm dañ leen di xeer ndeke li ñu gëm ci politique dañ leen mhm. parce que tel xeet lañu les mhm. léegi personne déplacée par exemple guerre bu amee ñii guerre bi ou bien catastrophe naturelle ay inondation ay tornade ay storm comme vous dites ici euh, obligé les nga jóge sa dëkk ñoo c'est les personnes déplacées mais waa Nations Unies ne nañ ko définir convention de Genève mais définir réfugiés. mais waa union africaine ñoom dañ ñi nga xam ne guerre moo tax ñu jóge seen dëkk ay réfugiés lañu donc ñooñu en Afrique dañ leen considéré comme des réfugiés donc euh, bon oh, il y a eu beaucoup de de problèmes de réfugiés de problèmes des Hutus et des Tutsis dund naa ko ma nekkee Burundi. Mhm. Burundi réfugiés yi fa c'était des Tutsis qui venaient du Rwanda ñeneen ñi daw dem Ouganda ñooñu ñoo seeni doom ñoo ñëwaat FPR bi jëlaat pouvoir bi léegi y avait des réfugiés angolais dañ doon xeex avec la guerre de libération.

ñu dagg seen loxo parce que les guerriers du Rouf les enfants soldats étaient tellement cruels dañuy ñëw ne la manche longue ak manche courte boo nee manche courte ñu dagg sa loxo fii boo nee hmm. dagg sa loxo fii ñuy ñëw taw bi ban bi c'était des choses horribles qu'on a qu'on a hmm. mais nag il faut rendre hommage aux Guinéens parce que hmm. ñoom dañu ne Nations Unies ñii suñu frères africains la ñu duñu leen def ci ay camps réfugiés li ñu am ci suñu village suñuy tool dinañu ko bokk ak ñoom suñu mm-hmm. école dañu ko bokk ak ñom mm-hmm. nation man ngeen ñu pour que ñu am moyen de mais bu des def ci ay camps de réfugiés mm-hmm. dans le temps dans le temps dans les années 80 lorsqu'il y avait le problème de tous les Guinéens qui fuyaient la Guinée avec bon, un certain régime lorsque le HCR est venu pour leur donner des cartes de réfugiés mais ça a dû dana non carte de réfugié du fi am Guinéens yi ak ben yi benn la ñu dañu fi ba do xam sax defe naa sax ñu ëpp sax sénégalais yi. voilà maa la ko wax. donc beneen crise bu ma fekkee mooy bi ñu nekkee Grèce. mooy mhm. quand le mur euh, mur de Berlin est est tombé. et que de mhm. l'Est yi newoon communiste yëpp effondré waa Albanie itam euh, réfugié yi itam tuuru ci Grèce ndeysaan Grèce Thessalonique fa la ñu euh, suulee ndeysaan sët doomu Alaaji Malik. Mhm. Malick bi bi euh, euh, français di ñëw mhm. réquisitionné ay soldats daf ne mhm. doomu jàmbur rek moo war dem sama doom tam fay dem guerre parce que mhm. Thessalonique donc ci Astoria donc fofu tam réfugiés yi dañu joggé feulé dañu joggé Albadi touru fofu sama jëkkër mo fa newoon <laughs> c'était très drôle parce que pour la première de leur vie que bu fermé lool ñu gis nit ku ñuul ka nga xamné ne moy ñeu di leen di len jappalé te ak neige bi ñu ngi kii be fi seen loxo yi sedd bi xalé yi le gis parce que dans les pays de l'Est les les les matières scientifiques sont très développées dans nga daan gis ci dëkk bi ay professeurs de de chimie de physique di ñëw di wut liggéeyu pour raxas ay palaat mm-hmm. lu nekk gis nañu ko moo vraiment il faut que Sénégal nous nous sant yàlla jàmm dafa nekk euh, jàll euh, mu continuer dafa sax macha allah mm. amin yaa rabal amin euh, soxna rahmatu tabaarakallaahu di leen fàttali rek euh, mbokk auditeurs yi bu fekkente ne am na koo xam ne bëgg na def participation wala am loo bëgg sànni boo nuyoowee rek incha allah ñu dalal la si jàmm euh, ngi doonu soxna Xadi. waaw di nuyu. waaleykum salaam. waaw soxna Rama vraiment kontaan trop bi ma dégloo sa vidéo yi. vraiment da ma impressionné en tant que jigéen ak xel bi nga am té vraiment ce euh, ce vidéo yi c'est captivante éloquence bi ki yëpp man bind rek la bëgg waye mënuma bind awma awma chance bobu donc suma ma gisee ku mën bind rek daf may impressionné légui man ñaari question la amone yow euh, en tant que femme diplomate lan moy rôle femme diplomate moy première question bi deuxième question bi moi, euh, si dëkk yi nga wax yépp parce que xam naa ne yi nga si àdduna bi dëkk yi nga lim fii ni yépp ban dëkk moo la si gën a marqué ak lu tax mu marqué la question am pour le moment merci. Euh, le rôle d'une femme de diplomate, comme son mari, c'est de travailler au rayonnement de son pays ou de son organisation. Nous, à Nations Unies la ñu mais fépp fu ñu on avait conscience que image du Sénégal dañ ko war a sàmm. Mhm. loolu mooy suñu rôle. waaye réception yi ñuy organiser bu leen une ne affaire fort rek la parce que ci réception yooyu ambassadeur de France top, ambassadeur des États-Unis top, nga indil sa ceebu jën ils font ils refont et défont le monde dans ton salon donc moo tax lu bari dañ koy jàng ci ci ci ci ci conversation yi donc il faut une discrétion euh, ça c'est le rôle qu'on a en fait et d'accompagner nos maris parce que dans les carrières diplomatiques il faut que am ka des diplômes. dafa diplôme souvent dañ koy taxañ J'ai été ci tiroir à mm-hmm. la Nations Unies 4 ans euh, commission économique des pour l'Afrique mais lorsque mon mari a été muté à Genève j'étais obligée de faire un choix et j'ai choisi de le suivre pour sauver la famille Motard, bon il y a un choix à faire quelque part de l'autre côté vis-à-vis de nos enfants on a un, rôle un travail parce que tu -hmm. une dans une dans un milieu international avec euh, des Afghans des Tanzaniens des choses et on veut les aider à avoir l'ouverture d'esprit pour monter mhm. dans intégrer une société internationale mais on les aide à ne pas perdre leur repère Motard, c'est très important pour nous bu fekkee dañu am dëkk ba nga xam dafa am une population d'immigrés ñun les immigrés sénégalais ou africains ñuy fekk ci dëkk mooy fa nga xam ne foofu la ñuy dem di nàmp foofu la ñuy pour que suñu repère ñu bañ ko parce que ñu vivre en communauté bi ma nekkee Kinshasa bi ma je me rappelle bi ma nekkee réception ambassade de France aux États-Unis Nous mu neex neex buffet yi nu mu neex neex li may yàkkamti mooy ñibbi sama kër simi sama robe de soirée sol sama bënn bu buy dileeku ne ne fes sa au quartier africain yelaa a yelaa yi dima tero euh, euh, ak gumbala yi ak euh, taray yi c'est le champ d'exil de de de Omar mm-hmm. donc, donc la communauté c'est elle qui nous nourrit en fait qui nourrit notre sénégalité qui nourrit notre africanité voilà mm-hmm. ça parce que quand on est à l'extérieur comme ça la communauté africaine il y a la communauté sénégalaise la communauté africaine et notre communauté aussi

marqué moy l'Éthiopie euh, l'Éthiopie de dafa représenter le bari pour les musulmans d'abord moy fa nga xamné ne euh, saaba yi buñ len buñ len buntu xaté Médine feulé ak Màkk fofu len yonti salaahu salaam yónni ne leen dem len dégg naa ne am na benn chrétien bu nek Éthiopie bo len démé dina len fat na Popoto. donc pour les musulmans c'est la première terre d'asile li ñuy wax asile moy moy Éthiopie oui, une chose mm-hmm. deuxième chose qui 50 pays africains et Éthiopie rek le ken musul dugo coloniser len. dañu xeex xeex xeex kenn benn tubaab bu seen ko colonie ñom rek ñoo colonie Libéria colonie mais dafa nek ba nga dañ ko pour que yi dañ leen ñu Afrique Éthiopie rek mo nek ba nga troisièmement moo nekk dëkk ba nga xam ne moom rek moo am écriture dafa am euh, amérique lañu jàpp koy bind et je ne sais pas pourquoi lu tax d'ailleurs à l'indépendance ñun africains yi jëluñu benn écriture bi ñu am def ko écriture de euh, l'Afrique mm-hmm. et, et c'est bien dommage mais c'est pas trop tard donc c'est un pays qui m'a impressionné par son histoire euh, par, par sa géographie par son peuple et euh, boo gisee tam euh, kii la noblesse qu'il y avait là-bas c'est une noblesse d'épée c'est-à-dire un titre de noblesse d'où sàggan dañ leen ko nous noonu ay dañ daan xeex léegi bu ne gagné nañu ay bataille buur bi jox leen ay suuf et cetera et cetera donc c'est un pays extraordinaire et puis siège OUA c'est une construction africaine foofu lañ koy defee donc l'Éthiopie c'est un pays qui nous a beaucoup marqué d'ailleurs suñu xarit ni fa new ñun ñëpp ñu fa newoon dañu des amis pour la vie des amis pour la vie parce que c'est ça l'étranger xarit yi nga dem dem ba say xarit ñoo la gën a jege sax mbokk yi ngay jóge parce que moom ngay gis chaque jour xam naa ni yéen tam am ngeen euh, mm-hmm. cette point de vue léeg-léeg sax euh, famille bi du ñu comprendre dañ naan diwu de xarit bi sax euh, li mu ko xamal ñun xamaluñ ko mais c'est ça parce que boo nekkee àll sa xarit mooy sa mbokk voilà soxna Khady c'est bon

ñoom dañu yàgg immigré mhm. lu tax loolu parce que le Sahel dafa nekk fa nga espace yi mhm. les espaces sont ouverts et ça vous appelle au voyage à partir et les premiers émigrés c'est généralement les Poulards et les Soninké et à Mali Mali moo la première terre euh, donc d'émigration ñoom ñoo dem France dans les années 60-59, ils étaient techniciens de surface et éboueurs et euh, les gens de la forêt, moins envie de traverser la forêt pour le Donc, c'est pour ça que les Sahéliens ont été les premiers immigrants, les premiers immigrés. L'équipe, mettant Bobo, France, de parce que l'économie française devait sortir des bras. Donc, nous, nous devons encore, les gens partaient légalement. Nous voulons ça une nationalité, regroupement familial, c'est-à-dire permettre nous, cette famille, nous faire le feu, nous organiser l'ordre, ils font beaucoup de réalisations à urosegi etc. cetera ont des hôpitaux des dispensaires des centres de santé etc. cetera euh, jusqu'en 81 le Sénégal a nga l'autorisation autorisation de sortie mais 81 lañ ko mais b 81 par exemple 5 ans négocier négociation, ay accords nga xam sénégalais bu bëggee Italie wala Belgique France sortent l'union de visa da ngay jël sa passeport rek fëgg say bagage jël say bagage dem si yoon mais temps boobu presque kenn du dem parce que situation économique bi situation économique euh, Sénégal c'était euh, c'était bon mais mhm. après ñu am euh, ajustement structurel économie bi xaw a metti kii nit ñi commencé léegi mais immigration clandestine bi bi mu commencé c'est en 2005 que xale yi la ñu commencé di jël ay ay ay gaal di dem mhm am ay accident yu bari bari bari bari léegi euh, ñu naan ou mhm. def lu nekk pour dem on a on y reviendra sûrement euh, pour la économique parce que ni a dem dem surtout nekk Italie réaliser ay affaires euh, donc vous aurez même un passage que vous pouvez lire là-dessus oui et léegi dafa depuis Covid bi affaire bi accident itam yokku ndaxte mois d' octobre rek quatre cent xale gaañu nañu ndeysaan si euh, ci affaire bateau euh, pirogue yooyu yooyu di dem euh, fële mm-hmm. parce que ak covid bi xam nga ñu bari c' était le secteur informel mm-hmm. léegi lu bari dafa taxaw monde bi yëpp économie dafa taxaw donc ñi newoon dans cette économie bon ñu bari itam amatuñu moyen léegi itam y avait beaucoup de choses suñu suñu kii par exemple ñi daan nappi suñu bateau yi amuñu force dem fu sori et puis ce qui est c'est que l'immigration, c'est indi pour tënk ko un cinquième de la population moyen 4 quatre cinquièmes des richesses mm-hmm. ça veut dire que nit ñi dañuy déplacer pour avoir ce qu'il y a de mieux immigration économique c'est ça dañuy dem pour avoir euh, euh, une meilleure vie essayer d'avoir une meilleure vie les sénégalais donc nous, ngi à l'étranger bon les chiffres officiels nous, ngi wax six mais 600 000, mille nous ñi nga xam enregistré ci mais en fait, on pense qu'il y a à peu près 3 millions, euh, millions de, d'émigrés sénégalais à l'extérieur. L'Union le Sénégal, il y a 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Mais malheureusement, l'Union est presque les dépenses de consommation. Mhm. C'est-à-dire que yen, yen à l'extérieur, yen ou 6 heures du matin, est presque 10 heures du soir, en sacrifiant vos enfants très souvent mhm. pour mhm. envoyer ce que vous gagnez aux familles. Mais les familles... Euh, les familles, euh, euh, excusez-moi, il y a beaucoup de gaspillage. C'est la facilité. Beaucoup même. Mhm. Ça veut dire que y a un recommencement et vous êtes piégé parce qu'en fait, euh, il faut continuer à envoyer et ici, vous vous privez et là-bas, c'est des, c'est des dépenses de consommation. Malheureusement, aucune banque, Amoul Ben Banque, capturer, capturer toutes ces riches parce que 2 milliards de dollars c'est beaucoup vous pouvez immigrer vous avez am banque ba nga financer ay investissement comme ça mm. famille euh, les les les les bénéfices des investissements ils ci dund mais di que 5 heures du matin 10 heures du soir boo 20 jours jeex na vous ne pouvez pas réaliser quelque chose ici parce qu'il y a les mortgages pouvez pas donc c'est un cercle absolument un, cercle euh, euh, je ne sais pas je ne sais pas et le problème, ce sont les Africains, c'est que nous sommes des ay migrants. africains, ont des des outils pour nous dellu ce réaliser. Alors que qui kii euh, immigré bu va par exemple Pakistan ou bien de Chine, mais pour moi, moom war na en Chine d'autres dellu d'autres dellu. Donc les Sénégalais ñoom dañu bëgg et c'est bien parce que Afrique ñun rek comme un Alors le problème bu que Moy. lan tubaab yi dañuy wax immigration choisie ñeneen ñom dañuy tann dañu bëgg di tann ñen ñoy ñëw seen dëkk moy ñi nga xamné c'est les cerveaux c'est-à-dire ñi xamné les cadres supérieurs léegi bo xolé par exemple au Sénégal 24 c'est-à-dire sur 100 immigrés 24 yi def nañu études supérieures ça veut dire que ñun dañuy ñak lu bari si suñu suñu suñu nos cerveaux ñom ñoy def évidemment c'est notre fierté, Vous dégagez euh, Modibo Diara euh, à la NASA, c'est la fierté des Africains. Vous nous déguez que mhm. le professeur de philo, comment il s'appelle Gagne, Bachir Gagne à Columbia, Mamadou Diouf à Columbia, on en est très fiers. Bon, tant que c'est des individualités, c'est bien, mais vous faites qu'il de pouvoir un, un truc de masse, alors que les Européens, nous gagnons parce qu'ils savent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, parce mhm. que la population les richesses richesses yi n'est euh, Afrique Amoul fenn parce que y a le defal Afrique géographie c'est scandale géographique ça veut dire que tôt ou tard le le continent de demain c'est notre continent Les bouffées fekkee donc les guillemets, c'est les doom yi xam ne il faut que ñu màgg avec l'idée que seen dëkk ñoom ñoo koy tabax ñoom ñoo koy tabax ëllëg voilà macha allah soxna Rama donc nga gis ne soxna maam Adama bu fekkee dafa am question maam Adama. waa asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Madou. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la ziar di di nuyu soxna Rama aussi di ko di ko remercier si waxtaan bu am solo bi ah leex na tabaarakallah man nag soxna Rama dama amoon rek benn laaj bu ma la bëggoon laaj. Moi, en tant que romancière ñun ñu nek ay immigré am ay njaboot fi ñu gis ne légui xalé yi lu ñu lecture parce que ko ci gis mu ngi soit ci computer wala mu ngi ci téléphone nek ci nouvelle technologie yeen ñi ngeen xam da ngeen di bind est-ce que yeen nga xalat par exemple li ngeen di bind mu ngi am ci ay support vidéo yo xam ñun ñi nga xam ne immigré nañu suñu doom yi mën ko utiliser pour def retour à la source parce que damay xalaat benn roman bu mel ni par exemple euh, l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmadou Kane bon livre c'est dafa nekk loo xam ne su fekkoon par exemple yéen écrivain yi mënoon nañu liggéey ci yu mel noonu ba muy am ay support yoo xamante ne ak ni monde bi di doxee dinañ ko mën a tas ba nga xamante ne ñun suñu njaboot dañ ci bénéficier wu loolu laa bëggoon laaj ba xam ndax yéen a ngi ciy liggéey pour mun ñu dimbale ñun ñi nga xam ne ñu ngi immigré te pare bëgg suñu doom yi am tànk fii waaye aussi am tànk euh, Sénégal am tànk Afrique ba bañ a ñàkk culture bi nga xam ne moom lañ fa moom lañ fa am salaamaaleykum wa rahmatullah merci madame. waaleykum salaam wa rahmatullah. merci madame vous savez léeg-léeg da ngeen di jël ay problèmes foog nekk problème bi dafa nekk problème mu xale yi parce qu'ils sont immigrés mais problème yi gis jeunesse bi yëpp dans le monde entier même problème xale yi ñu internet lire c'est un grand grand grand problème mais am ñuy livre par internet la lecture numérique donc mais nous ñun ñun écrivain malheureusement livre yi par exemple livre ba nga mu ngi francs écrivain mu ci am ça veut dire éditeur libraire maison d'édition mokoy mom ak imprimeur mokoy koy donc dañ koy tong tong comme on dit dootu am lu bari donc mais de plus en plus ñu ngi euh, amna livre yi nga xamné les gens peuvent avoir accès par internet par internet mais légui xalé bo bëggé mu bëgg a lire ci bi mu nekkee xale ngay ngay commencer par exemple cadeau nga diko ko jëndal ay livres mhm. di ko ànd ak mom di dem bibliothèque mhm. waye par exemple daanaa def par exemple sama waa kër yi bu ñu amé anniversaire bu may jënd cadeau mujj na lii waaye léegi dañu dafa dem dem na maman sama xarit ne ne bu leen jox <laughs> bu leen jox ay livre doy na sëkk ak <laughs> voilà donc c'est un problème général euh, mhm. tous les autres problèmes je me souviens que mas nañu am benn conférence su femme euh, écrivain pen mooy euh, poète novelliste écrivain et novelliste mooy kuréel ba nga xam ne écrivain du monde entier ñoo ko bokk mais ci biir dañu am réunion des des femmes écrivains mais bi ñu waxtaanee ci affaire écrivain léegi affaire yu jigéen ñu commencé di wax suñu ñëw affaire ku nekk Australie Tanzanie ak Sénégal problème yi la voilà donc euh, mais bon problème bi gën a problème bon euh, xale yi ñu ngi fii bëgg à la américaine ça se comprend mais da bëgg tam ñu mais euh, parents yi une responsabilité bu mag ci lolu parce que euh, bu que ne parents yi dañu top rek affaire euh, gain c'est-à-dire comme comme. ça veut dire papa n'est na au bureau jusqu'à 10h du soir maman n'est na salon mais 10h du soir xalé yi à partir de 5 ans sont dans la rue c'est la rue qui les prend en charge L'éducation éducation il y a l'école certes mais man ngeen def ay encadrement comme inscrire leen ñuy def sport xale yi en général bu ñuy def sport seen bêtise na wàññiku léegi tam affaire u alxuraan bi c'est une excellente chose gis naa Serigne Ahmed cours yi muy joxe mais c'est bien et et c'est une façon moderne parce que traditionnellement léegi alxuraan dañ koy def comme punition bu xale ki nag puni demal jàng alxuraan comme punition léegi tam euh, nu mu tudd euh, les oustas il faut que il se rapproche des enfants. Euh, peut-être que les oustaches doivent arrêter d'avoir une barbe, <laughs> une barbe avec euh, des cheveux hirsutes. Peut-être que les dañu doivent a commencer sur jogging. ku euh, soo <laughs> pour aller ñeme ñeme leen fàtte ngeen amoon na benn way à l'époque benn way day sax nekk xale ñaan kaala kurus sotal ak sikkim. yaay booy ragal ba ñu mais il faut que les enfants je me rappelle lorsque le prof d'arabe venait de Coran mon fils dit Oh, mais celui-là, il est encore là. <laughs> Il vient toujours quand on ne l'attend pas. Donc, moi, je pense qu'il faut humaniser l'apprentissage du Coran. Il faut <laughs> humaniser quoi? Coran. léegi comme il faut parce que am un ay financement peut-être man man ngeen commandé ñu bindal leen ay am na des livres pour enfants ay livres bien nga il ne retracer l'histoire du professeur sallallahu alayhi l'histoire du l'histoire de comme ça Déjà, mhm. quand ils sont petits, nous commençons des habitudes lolo, mhm. avec des dessins, des dessins, mhm. mais pas des gens avec des moustaches, des cravaches. Euh, et, puis, euh, ça, leur donne, ça leur coupe l'appétit d'apprendre euh, d'apprendre le Coran. Et l'équipe gens pour faire intégration moi, moi, damay je suis immigré di anglais ou français mais je suis perturbée parce que je sais que tôt ou tard vous allez le regretter Mmh. ma fille parle wolof mais mes deux garçons ne parlent pas le wolof parce que xam nga affaire bi da ngay dem a dem langue mmh. mais s'il le faut def leen ay étiquette qui est wolof français français parce que les Algériens disent du français c'est notre trésor de guerre français d'une cabaye moi c'est trésor de guerre. moi mmh. le ñu lu ñu xëcc euh, euh, donc il faut garder cette langue là parce que anglais bi xale yi dañu ko à l'école dans la rue, dans les magasins. Donc, les parents n'ont pas besoin de leur parler cette langue-là. Il faut s'astreindre parce que le premier facteur d'intégration dans une société, c'est la langue. Si vous voulez que vos enfants, vous dites, mais Sénégal, communiquer avec leurs grands-parents, leurs cousins, c'est par la langue. Mais s'ils viennent et qu'ils ne parlent rien, mais c'est déjà, déjà euh, euh, une première barrière dans, dans, leur retour au pays. Ils ne retourneront pas, ils resteront ici. Euh, certains resteront, certes, mais bon, parce que maintenant, le, monde, c'est un village planétaire. Mais certains voudront retourner. Et le handicap de ta langue est un handicap majeur et les parents sont absolument responsables de, de, de, de cette situation fait. Et surtout que, bon, euh, très souvent, on leur parle anglais, un anglais qui est comme le mien. Comme vous savez, l'anglais de lui de finesse, euh, quand il allait en Amérique, euh, Nan My Taylor is rich. c'est pas la peine de parler anglais aux enfants. Voilà. <laughs> man am naa benn am naa benn question bu ma bëgg laaj bu fekkee amul kenn koo xam ne dafa bëgg a participer. vas-y Khady. voilà euh, soxna Rama fi wax benn wax bu am solo nga ne yaa euh, boo xoolee immigré yi dinañu dugal deux milliards au Sénégal chaque année te boo xoolee adduna bi ni muy doxee léegi soo gisee par exemple juif yi raw ñu parce que ñoom dañuy dañuy booloo. xam la même chose parce que loolu moo leen di jox doole ñun nag lu am yónnee ko dëkk ba dunduñu deux milliards par an au Sénégal milliards de dollars de dollars au Sénégal milliards de francs CFA exactement xalaatal tey ñun sénégalais yi au niveau au niveau des États-Unis mm-hmm. ñu boole am banque créer suñ own emploi di liggéeyante suñu biir di jaayante di jëndante mm-hmm. mais dafa am benn mentalité boo xam ni mm-hmm. immigrant bi ñun dañ ko ñun xamuñu booloo pour ñu bokk déedéet mm-hmm. te adduna bi kenn mënul dem sans pour autant l'union fait la force comme nuñ ko waxee soo gisee juif yi am doole loolu moo leen may doole so gisee indien yi am doole bay mën a dem investir Sénégal loolu moo leen may doole mais ñun waaw ñun ñu ngi am ah, en tout cas l'union fait la force vous l'avez dit vous-même. les Libanais vous avez vu ils sont solidaires. Mm-hmm. les Indiens sont solidaires. les Sénégalais doivent apprendre les Africains doivent apprendre à être solidaires. parce mm-hmm. que vraiment 2 milliards 500, mm-hmm. milliards par an les émigrés Sénégal war nañu mante lépp ñu di ko yàq ci consommation yàq bi greffage crédit et cetera jagg jagg jaay jomb ñaaw mais mën na nekk dans une banque dans une banque de développement une banque de mhm. développement bon les pouvoirs publics doivent pouvoir vous aider donc ça veut dire que war ngeen mën a am ay association xam ne da ngeen di dem toog avec les les pouvoirs publics xool nan lañ koy réaliser ak aussi d' autres partenaires je pense que ça doit être quelque chose de possible ça doit être possible. Mhm. ça doit possible je pense que ça doit être possible thank you jërëjëf soxna Khady macha allah ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk auditeur auditrice yi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak ñun à chaque fois ci liggéey bi di nuyu bu baax maman Élise Muriel ñu ngi lay nuyu bu baax a baax soxna Zeynab ñu ngi lay nuyu Ndey Bey macha allah wulimata ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax jërëjëf euh, tabaarakala dafa mel ni am na ku doon nuyoo léegi bisimilah. très bien. Uh, Hajbaf ah, soxna Madou kon xam naa ma ci ki ci docteur li mu doon wax noonu docteur Ama uh, c'est très important moi j'ai eu la chance ma lire benn extrait boo xamante ni daf ko def dédication uh, suñu sëriñ suñu wasila Sidi Ahmed ma bëggoon ko partager ak monde bi parce que si li muy wax noonu si immigration buñu ñu extrait bobu dédication bo xamanteni témoignage la ba nga xamanteni vraiment man duma ko lire dama ci kontaan gis na li sigil non seulement euh, Sidi Serigne Sidi Ahmed mais nga c'est le père fondateur de IFA mais bépp mom membre IFA bépp julli et bépp ko immigré dal donc euh, su ma sama may rek ma go ahead euh, na read that extrait comme ça ngeen ngeen déglu ko quoi ñu partager ko après moom xam dinañ ko si laaj ay question mu ñew ci quoi inshallah Très bien. Même une Mm -hmm. is dedicated to Serin Sidi Ahmed C, the book *A L'ombre du Négus Rouge. It start in this land of pioneers, Tower's material resources, a pioneer of a new kind has settled in Tower's spiritual enrichment. You, Serin Ahmed Si, Habib, son, grandson of, grandson of Mamouda, I can only salute your courage, your selfless, your selflessness, and your choice to have taken up far away from One the touch of your illustrious grandfather with modesty and selflessness. So dédication bu mel noonu euh, soxna Rama euh, docteur dama la bëggoon na laaj euh, lan moo la inspiré ba nga bind lu mel nii si suñu sëriñ suñu wasila ak what does it mean lan le wara a signifier si ñun ñi nga xam ne ñu ngi koy lire wala di ko déglu. Euh, sëñ Mampo je vous remercie euh, dédicace boobu si euh, sama xol laa koy jëlee en toute sincérité parce que depuis vingt ans maa ngi ñëw fii di seet si sama rakk soxna ma jigéen mook sëriñ sëriñ bi di Ahmed may gis ni muy consacré ci affaire u ITFA ma gis ITFA ndànk ndànk ndikati yàlla dimbali bi mu yegg fi mu yegg tay euh, euh il paraît que 33 daayira ci 33 états sur 50 donc ñu ngi ci ITFA donc amna ben genre maillage li ñuy wax en français maillage moy comme benn mbal daf dañu la Tijane dafa maniku mbal Amérique et cetera donc bolé len ci la nga xamné c'est une base c'est-à-dire la foi et la pratique religieuse loolu dafa nekk base ba nga euh, au départ de ça c'est ça mais après loolu mooy permettre ñuy évoluer ci leneen ba tey par exemple ñu dem ci domaine éducation domaine solidarité léegi ma gis ne Amérique c'est pour tout le monde Amérique nit ñi dañuy pour comme comme. mais moom dafa consacrer sacrifier pour enrichir sa connaissance pour enrichir donc euh, euh, les, actions sur le chemin de la Tigania. Et ça, c'est un esprit de sacerdoce. Ça, c'est une abnégation qu'il faut. Une abnégation parce que Nyon, il a une, avec sans doute euh, ses oncles, d'autres personnes sûrement de la branche familiale, ils ont un sens très aigu de l'héritage spirituel qu'ils doivent conserver. Et ça, il y a le rythme comme on a failli. Et je suis reconnaissante aussi à la communauté euh, sénégalaise bi fi nekk cër biñ ko jox jàppale biñ ko jox jàppale man maa ngi gis man par exemple jigéen ñi ñoom Amindir ñoom euh, comment il s'appelle euh, mon ami Fatoumata comment il s'appelle Mado Mado ku nekk ku nekk de ton côté yaa ngi def dara ci ITFA te loolu lépp ñu ngi ko duggee loolu yëpp parce que en fait association ku nekk am na lu mu fay indi am na ñi nga xam ne seen xam-xam am na ñi nga xam ne seen man-man am na ñi nga xam ne seen kantan mooy l'apport en industrie ñun ñëpp ñoom Assane Thiandoum ñoom kii mais c'est extraordinaire ñëpp comme un seul homme dañuy jóg di euh, euh, liggéey pour que fa nekk une chose une réalité léegi par exemple dans mon livre Fermou il y a une grande place qui est qui est qui est qui est attachée au Ndiatigi. je parle toujours du Ndiatigi. le Ndiatigi est toujours un, un, un gage de succès de celui qui immigre mais vous, IFA, vous avez un diatigui au niveau institutionnel. Mais quand ifa nga xamné un conseiller en communication de la dimension de Sokhna de la Banque mondiale. On sent qu'il y a aussi sa main. Parce que la structure, la rationalité de la structure, la rationalité de, son mode opératoire, on sent que, à part cela, il y a quelque chose, il y a une main de professionnel. Parce qu'en fait, tout ce professionnalisme maintenant. Résultat réel. Ah, <laughs> Well said, well said. Vraiment content de mm-hmm. Wax ji nu mel Guinée. si ko xam le chef de l'État du Sénégal, son excellence Macky Sall, t'a nommé comme héros. Euh, le mm-hmm. grand serigne de Dakar, moom itam wax la même chose. Mm-hmm. Euh, ñooñu suñu ku ñu defal witness bu démé te li nga wax ni man mos naa ko dégg sax waaye ça ne m'avait pas frappé que bi ma liire affaire bi muy sëñ Abdou Aziz si di doomu xalifa général bi right now c'est Sidi mm-hmm. wax na lu mel ni si Sidi Ahmed ne il a mm-hmm. la voie spirituelle mm-hmm. donc nga ñëw tey dedicate ko years ago si sa livre donc man I am excited to get that book I need that book yeah, you gotta find me that book. you it, it, it was in my plan to uh, to organize a um, big uh, you know dedication ded- dedication dedication, dedication. Mm-hmm. but now with the covid it's a little bit difficult but uh, in one month you will have access to the book i will mm-hmm. uh, try to uh, to bring some samples and maybe at the next convention if mm-hmm. you allow me, maybe we mm-hmm. can organize an afternoon of the DRC mm-hmm. where I can explain, go deeply inside the book, explain what is see. Because this is something uh, the, the, the I, I wanted to show, you know, in that book, the uh, immigration in Africa, because that so what is very interesting. Uh, these immigrants, when they used to go to Zaire, they go by the road, you know, from Senegal, they will take the railways, go to Mali, they will stay three or two months, work, have some money, go to Burkina, after mm-hmm. Burkina, they will go to Benin, after Benin, they will go to uh, Nigeria, uh, Cameroon, Gabon, and uh, Congo Brazzaville. So it's uh, epopee. I don't know how to mm-hmm. say English epopee. Oh, no, you're good. Uh, epopee. You're good. And I would really like to have uh, the, uh, the, the, the, opportunity to present it to the Senegalese community here uh, because it is Fergo, it is there, it is your novel. It mm -hmm. is, Fergo is immigration in, in Pular. Mashallah. ah gaa yaa ngi bind si suuf kontaan nañu vraiment ñu ngi kontaanee ñu ngi gis Salam bind mi. salaamaaleykum jërëjëf merci. salaamaaleykum. maaleykum euh, salaam Pape yi ci Tiwaawan Washington studio Daarul Habib maa ngi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, soxna Rahmata maa ngi lay ziar maa ngi am mbégte ci ñëw bi nga ñëw fii ci rajo bi di waxtaanee lu am solo euh, surtout livre yi nga jot a bind yëpp bu ñu demee tuuti ci euh, raaya bi ñu la tabal muy grand prix de chef de la président de la république ci li nga li nga bind yi ngay bind yëpp ñu li ci bëri comme ni nga ko waxee sànq laal immigration euh, ñoom ñu jot ci am ci mbégte euh, ba jox la prix bu mag boobu si sa analyse si sa gis-gis fan la ñu toll euh, ban njàngat nga gis ne defagum nañ ko bi ñu jotee ci libre bi ak léegi parce que dafa mel ni wax nga ko sànq kii bi dafa xaw a dafa xaw a tar jël gaal gi Barça wala Barça dafa xaw a tar temps yi boole si aussi est ce que euh, euh, du ma ne ndax promettre nañ la mais est ce que euh, xalaat nga ne dina bokk ci livre yi ñu war a dugal ci éducation bi comme ñoom livre yu Birago Diop yeeg yu Mariama Baye yooyu yu fi jàll ba ñëpp xam leen mm-hmm. jërëjëf. ok jërëjëf Pape Diagne. te ma les remercier doublement Nous, ñun euh, euh, en Afrique malheureusement nous ñi livre ba nga nous ne ko bañ c'est-à-dire livre scolaire du dem parce que si xoolee par dans les ménages beaucoup xoolee dépenses ñuy par mois dépenses pour jënd ay livres parce que c'est zéro nous avons des livres, rentrée des classes dañ avons jënd parce que dafa nekk ci programme léegi écrivain yi njëkk euh, jënd bind moy les classiques mooy ñoom Birago Diop Abdoulaye Saint Ben Ousmane ñom dañu bind temps ba nga xamné télévision presque amul donc livre bu génnee ñëpp ñokoy lire ni ñi ñu ko jënd bu ko jëndé ñëpp ñu ko lire les uns dañu ko commencé page un ñeneen dañu commencé page trente parce que ku lire rek amna benn page bu naaw waaye ñëpp dañu ko lire je me rappelle une si longue lettre mu génnee ñëpp lire nañu ko Légui, le principe c'est que livre bu laata nekk ci programme dafay nekk un classique c'est-à-dire dafay nekk livre ba nga xam ne dañ ko lire liiraat ko ba ñëpp xam ko def ko programme loolu nag léegi ñun ñu ngi koy case parce que loolu mënatul ne parce que nit ñi liiratuñu livre bu ñuy lire mooy livre scolaire donc livre ba nga xam ne léegi dafa nekk gagné concours concours ba nga xam ne 66 livres la ñu jël ñu tànne ne ce livre moo ci gën mais naturellement dafa war a nekk au programme la commission du programme la <coughs> commission ba nga elle est indépendante du ministre moy décider du président moy décider commission bobu moy décider c'est en général ba nga il y a 14 membres c'est des professeurs de français il paraît que nous, ngi ci refont des programmes pour am livre ya nga xamné niñ koy duggal légui donc man ma ngi ñaan de logique que grand prix au moins les grands prix mu nekk livre ya nga xamné dañ koy duggal ci programme bu fekkee mu ñu au moins vous avez le grand prix gagné pendant 2, 3, 4 ans n'avez que du programme voilà donc maa espérer que ce livre n'est qu'au au programme n'est qu'au programme et euh, c'est ce qu'on espère mais ce n'est pas très très facile et c'est la seule façon de nous aider parce que bon un livre qui gagne euh, il y a beaucoup de livres il n'y a pas seulement que le Grand Prix il y a par exemple le prix Ivoire Maria Mondo a eu le, prix Ivoire et beaucoup de le prix Miondo euh, des lycéens de, du Gabon, du prix de la première dame du Mali, ces livres pourraient très bien être au programme. Au programme. Et vraiment, euh, on espère, parce que les écrivains, il n'y a aucun écrivain qui peut vivre. Amoul ben écrivain nga xamné li muy bind qui ci dund. Parce que ñun suñu livre ñu génné 3000 exemplaires, 5000 lañ ci maximum. Alors qu'en France, par exemple, nous avons ko 100 000 exemplaires parce que publicité la publicité bi, avons dépenser 1 million de dollars ci publicité bi. Boo duggee métro lépp mu ngi et nous à une maison d'édition yoy a duñ ci am accès mais mu avons des écrivains qui disent duñu écrivain africains ils sont écrivains tout court écrivain tout court c'est-à-dire dañuy bind la nga mais attention un livre dafa un objet de consommation at mu jot war nga dara mu am mu je me définis comme un écrivain africain c'est-à-dire problème africain Afrique daf mu et quand j'écris mon africanité je tiens à mon africanité et exprimer à travers mon africanité et donc je suis très fière de dire je ne suis pas écrivain tout court je suis écrivain africain. Mhm. di ziyaare eh, soxna Ramatu mm-hmm. ñu ngi am mbégte lool eh, vraiment man bi ma liiree bi ma xoolee interview bi nga xam ne def na ak Aziz mm-hmm. daf ma impressionné mm-hmm. et puis eh, maa ngi profité de occasion bi di ko féliciter vraiment ci prix grand prix chef de l'État bi nga xam ne remporté na ko muy loo xam ne man vraiment bi ma ko gisee dama ci kontaan lool di ñaan yàlla na koy gig yàlla defal ko barkeel. vraiment honneur la parce que fi mu bokk ah parce que xam nga ni eh, ñun lépp loo xam ne jugee na si Ahmed jugee si soxna ma jigéen rek dafay nekk loo xam ne mbégte lay doon mm-hmm. vraiment ñu ngi encore une fois de plus ñu ngi koy félicité bu baax di ñaan yàlla na ko prix bi jig. amiin njabootam. Euh, xanaa li bon bëgg am rek lu ma leeral lu ma rek lu lu ma bëgg nu leeral ma ko. c'était mhm. pour sauver eh, sa famille parce que maa ngi bu fekkee ni dégg naa bu baax sax dafa mel dafa utiliser le mot démission dafa mel ni dafa démissionné postam pour rejoindre son mari. Euh, donc euh, mais bi muy ci biir interview bi dafa wax ni ci fin bi euh, bi muy jot prix grand prix chef de l'État dafa mel ni récompense la ci moom donc man aussi dama xalaat ni. bu demee ba foofu récompense peut-être bi muy jógee euh, bi muy dem Genève am na am na am na loo xam ne bàyyi def donc mu mel grand prix chef de l'État récompense le boo xam ne nii dafa dafa dafa li nga xam ne nii euh, la woon peut-être euh, traversé na ko peut-être loolu dafa nekk lu ko fay muy benn donc loolu bu fekkee loolu am na ndax bi muy dem c'était dafa démonté bi muy dem

bëgg leen yóbbu ñu bañ ba parfois sax dafay dem ba indi tas ak yeneen yenn am ci donc moom femme d'intellectuel bi bi mu doon africaine bi mu doon ci jamono boobu mu nungu bàyyi liggéeyam dem dem euh, top boroom këram moi je sais même bu fekkee ne yaa ngi topp aussi te di lire vidéo yi di nga gis ne moom soxna la boo xam ne nii eh, am na loo xam ne lu bëri jëlee na ko ti yaayam ak papaam su li ne ko fa euh, euh, ci ci ci ci ci interview parce que sa ak sa papa dina di nga am ay valeur yoo xam jikko yoo xam ne nii ñoom rek ñoo ko mën a def ci yow donc loolu aussi ndax bi muy dem euh, c'était tout juste pour euh, euh, ça c'est fekk jàgg jëkkëram ci ci ci ci mission bi mu nekkoon la mu bàyyi li mu doon liggéey donc bu fekkee ni tudd na récompense peut-être récompense bi mooy mooy loolu lañ ko récompense bi ci des mooy ndax ay par param ci boppam ñoo ko yar yar boo xam ne nii fu mu mën a dem rek du rôle intellectuel bi day nga donc encore une fois vraiment je vous remercie de la question. Mm-hmm. Euh, euh, éducation je ne suis pas la seule. Euh, c'est que la famille, la famille, le mariage, la famille avant la carrière. Donc, mon euh, Éthiopie, mon Éthiopie, je venais juste de terminer ma maîtrise. J'ai été engagée euh, aux Nations Unies, c'est-à-dire à la Commission économique des Nations pour l'Afrique. Légui quatre ans après quatre ans mon suis kër ñu Genève léegi man ma war choisir j'ai choisi de démissionner de mon poste pour le suivre dans sa carrière parce que euh, Momo fa indi dem ma pour affaire salaire ba quoi qu'il en soit euh, buñ la ko faire le premier avant le 30 juillet. Euh, parce qu'il faut sauver la famille pour que la famille reste ensemble Yo am nga ay doom la famille c'est sacré mais nag Nations Unies jigéen yu bari ce sacrifice hein. parce que Nations Unies les épouses des femmes Nations Unies nous bari des compétences, de toutes sortes de compétences. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des trucs, mais quel qui une carrière. Parce qu'en fait, euh, vous êtes à l'étranger, vous avez des de problématiques, vous ne pouvez pas, c'est très difficile de trouver du travail parce que par exemple, Sénégal, Tay, vous nous recrutez au ben ben si ben ah, mon de poste, <laughs> il y a ça. Alors, on ne veut pas donner de poste aux étrangers et vous êtes et possiblement vous êtes étranger dans un pays, quoi qu'il en soit. Et donc, euh, bon, moi, je ne le regrette pas. Moi, lorsque j'ai eu ce prix euh, euh, de 40 000 dollars, mmh. je me suis dit, peut-être que c'est ce que j'avais perdu en démissionnant, que le Dieu me l'a restitué en, me donnant le grand prix du président de la République pour les lettres. Mais maintenant, la vie a beaucoup changé. bon, les, jeunes, maintenant, vous savez, la vie est chère. Mmh. on a souvent besoin de, salaire. Euh, ce n'est pas comme il y a 20, il y a 30 ans. Maintenant, je vois les jeunes cadres, euh, bon, avec leurs épouses, ils doivent tout partager les, les femmes doivent participer, nous participer. Et parfois, un salaire nous suffit. Mais moi, je pense que euh, dans des pays, par exemple, comme ici, on a ramené un d'éducation à xale il mhm. serait bien que ki nga qui ont ci jëkkër ji ou jabar ji ka nga xam ne yow li ngay gagné moo gën a néew peut-être que am na heure ba nga xam ne au lieu nga nekk sa salon bi ay minuit peut-être que 17 heures mën nga def sacrifice mu fekk la sa kër parce que bu fekkee ne yaay néew fii baay néew fii mais la rue the street will take take care of your child Mm -hmm. Et je pense que il faut un sacrifice quelque part. Nous, nous diplôme, nous, ñëpp pour les Nations Unies, les femmes Nations j'avais des amis, elles étaient médecins et ces choses. Elles suivent leurs maris, elles s'occupent des enfants, euh, parce que les maris sont souvent en mission dans des zones de guerre, dans des zones de troubles. On fait ce sacrifice pour sauver les enfants. Parce que les enfants des diplomates, ils ont besoin, ils ont leurs problèmes spécifiques. Ils ont leurs problèmes spécifiques parce que, par exemple, nous avons amis d'enfance. Amis d'enfance, de fait important ci construction de la personnalité dañuy hmm? changer école hmm? seen xarit amul gistuñu seen xarit donc dafay nekk ñu xam ne dañu am le problème spécifique dafay nekk ñi nga xam ne dañuy ñeme ragaluñu dara parce que chaque deux ans nañ nekk nañu ci environnement bu bees léegi dañu xam lu bari parce que c'est ils sont ouverts les yeux ouverts donc souvent bu ñu demee université ils s'ennuient alors que ñoom dañu xam lu bari donc tout ça donc il y a des problèmes à gérer yi nga xam ne bu fekkee ne la maman est ici sa carrière le papa et sa carrière, l'enfant ici, c'est des problèmes à gérer. Donc, chacun, il y a des avantages, beaucoup d'avantages, mais on essaie de les gérer. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. waaw maa ñaas man la Babacar. aw tonton Babacar Diouf ñu ngi ziar. ça va delloo naa la ziar sëñ Maamu maa ngi ziar merci. Hein, merci. ah euh, intervenir tout ah, bonjour ah, depuis surtout Rama di sama sœur ah di sama comme je dis toujours. Mhm. Euh, je puis dire féliciter d'abord si ce ce prix et puis c'est une fierté pour nous de dëkk Tëngéej aussi parce que Tëngéej baat gi benn mais aussi pour tout le tout le Sénégal oui D'abord, ah, dafa am dire ma bëggoon am sa parce que nous sommes a lire intellectuel sénégalais Quand dafa wax il faut que sénégalais aient gëm immigrations léegi immigration dootul pour ñëw dajale comme nous l'avons fait avant peut-être année soixante c'est plutôt ñu xool

peut-être dëkk yi buñ fi ñëwee ça va plutôt profiter sur nous doom mais peut-être pas nous directement comme niñ doon dajalee nga tabax kër Sénégal te peut-être xamuloo sax ndax diñ ci mës a dëkk euh, Babacar je te remercie ne nga sax euh, sama sama mbokk nga waaye sa suñu goro nga tam <laughs> ndaxte sa ah. mooy denc suñu ñees xadi donc mbokk gi dafa jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba euh, oui ko fi nekk di lim duñ fi jóge tey et je te félicite pour sa contribution keroog sur euh, le Covid c'était vraiment très très très intéressant et euh, c'était vraiment la contribution d'un connaisseur léegi li sànq nee naa que sénégalais yi leen sonal africains yi leen sonal c'est que dans leur tête néew guñu ay migrants ñoom pour ñoom dañu dem wuti pour investir par exemple un pakistanais un chinois bouffé fi nekk il a tourné le dos à son pays mais c'est difficile de toute façon la prochaine ça, se fera avec la prochaine génération mais la génération actuelle quel que soit l'olé noir nous avons toujours en tête que de new pour réaliser dara Sénégal mais la, la poire peut être coupée en deux moi je pense que envoyé ñu yónnee au Sénégal war ko aller nan la en fait parce que 2 milliards envoyés pour ay prêts de consommation du dara dañ ci ak ak greffage ak crédit mu nan def éducation euh, euh, euh, investissement comme du école université mais maintenant, les activités extrascolaires les activités d'encadrement des activités sportives qui évitent à l'enfant de dévier mais moi, je pense que war entre du talk, du wartan, du pour que euh, bon c'est difficile c'est difficile moi par exemple euh, j'étais pressée après la, la retraite de rentrer au Sénégal mais parfois je me dis est-ce que Warren a rentré à 100% Peut-être qu'il faut trouver les moyens de vivre six mois ici, six mois là, je ne sais pas. Mais en fait, réflexion-là, Warren qui réfléchit, je j'ai pas la solution. Est-ce que vous voulez être des migrants Est-ce que vous êtes prêts à être des migrants ou pas Moi, je pense que le Sénégalais ne sera pas un migrant, cette génération. Ils penseront toujours à retourner. Donc, il faut en faire profiter peut-être les enfants. Mais peut-être que cette mentalité, les enfants, mais il ne faut pas oublier que l'Afrique l'avenir du monde, c'est l'Afrique et que Africains, nous devons développer l'Afrique. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête que c'est du cerveau, c'est les xam ni nous, et que les Chinois parce que maintenant il y a le pétrole. Par exemple, au Sénégal, il va y avoir le pétrole à partir de 2022. Il va avoir, il y a d'autres richesses, il y a l'or. Est-ce que les cerveaux vont fuir Est-ce que vous allez, est-ce que les pour que l'extérieur soit utilisé, c'est un débat. C'est un débat, c'est un choix. Euh, c'est un choix, c'est un débat. Et euh, la réponse, euh, la réponse, il n'y a pas une réponse absolue. chaque cas est un cas peut-être individuel. Alors, peut-être qu'il faut approfondir la la, la, la, la, réflexion comme je dis, on est très fiers d'avoir votre frère à Columbia, on est très fiers d'avoir Bachidia à, Colombia Columbia. Mais de l'autre côté, bon, on, est triste de la fuite des cerveaux. C'est 25% euh, des cadres supérieurs qui émigrent du Sénégal. Mm-hmm. Et on a besoin de cette manne intellectuelle pour développer notre pays. Bon, évidemment, euh, l'espérance de vie a augmenté. Il y a eu des succès dans certains domaines, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, par exemple, avec le pétrole, avec le pétrole binarigno. Euh, on, est tous euh, euh, conscients qu'il ne faut pas suivre les mauvais exemples de, mm-hmm. certains pays pétroliers. Ils sont, avec le pétrole, ils sont plutôt appauvris. Donc, il y a des choses à faire, il y a une réflexion à mener. Et peut-être que la solution, c'est ce n'est pas une personne qui l'a, c'est des réponses individuelles à des situations individuelles. Voilà. <clears throat> parce que américain yi am intelligence organisé ou wu noo xam ne dëkk yi ñoy formé après ñom ñu ñëw jari ñoko parce que même boy dégg ñu lay wax ay prix Nobel chimie prix Nobel de la paix boo déggé sen tour rek xamné duñu ay américain parce que vous ñu leen euh, euh, correctement mais kenn du dem fenn kenn du dem fenn mm-hmm. mais c'est pas le cas c'est pas le cas malheureusement. Par exemple, tout dernièrement, Félix ça un grand économiste d'EMNA, États-Unis, qui rend bonne université, etc., etc. Et bon, c'est triste parce que euh, la jeunesse a besoin de sortir de yeux. Maintenant, là, euh, il faut que le pouvoirs publics soit au Sénégal ou mhm. ailleurs. Le problème n'est pas sénégalais, il est africain. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait quand même cette conscience de l'importance de l'éducation. Vous savez, euh, Senghor, dans le temps, vous savez, à de Résidence, pas de résidence villa yi gëna pas de résidence professeur d'université ñoo ko mhm. ak sangor daf dafa jël kër yi ku mu à l'époque pas de résidence mais pour que nga il faut nga tranquille nga dëkk fu baax leen kër yoy pas de résidence des grandes villas etc. pour les professeurs d'université parce que c'est ça l'élite intellectuelle c'est ça nous ñu mhm. formé dañ leen jox le maximum Mm. waaw soxna Rama on sent dafa que depuis tout à l'heure ñi fi nek un dañu am sentiment de peur que am envers le retour au pays té y ci sa paragraphe bu important ci ce ci ce livre bu ma jot lire lire euh, si vous permettez ma vais le ko tuuti ma lire ko euh, y a un paragraphe qui dit notre jeunesse brave l'océan et les requins elle brave les sables du Sahara Elle les, et les maghrébien. Elle brave les barbelés et les chiens furieux, la peur au ventre, la peur aux trousses, cette peur d'échouer et de devoir rencontrer le regard éperdu d'une mère qui a tout misé sur ce départ, la peur de devoir subir cette honte, de revenir à la case de départ sans avoir réalisé leur rêve, celui de voir leur mère relever la tête, relève la tête, Barcelone ou Barça, Barcelone ou la mort Barcelone ou les affres de la mort donc sànq ba léegi li nekk benn paragraphe c'est très important ci ce livre bi paragraphe boo c'est très touchant même te sànq ba léegi nit ñi fiy wax yëpp dafa mel ni dañu am benn crainte de retourner et moi je pense que crainte boobu mi ngi jóge ci ne su nous par exemple les immigrés on se prend pour les bailleurs de fonds ñun ñi nga xam ne ñooy provide ñooy yónnee bu fekkente ne dañu xëyoon tey wàññeeku xëy tey dem toog ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon bailleurs ñu war a nekk léegi charge ci famille yooyu noonu euh, kat mooy assurer intérim bi loolu dafay nekk question donc regard bi ñuy am envers ñun itamit du noonu te ñun itam suñu confort duñu ko am 100 pour cent xaw ba xam lan nga ñu mën a definitely wax ci loolu je crois que jéem naa répondre parce que question bi noonu comme ma ne ni ñi sonal africain yi les africains ne sont pas des migrants

la solution viendra de vos enfants. Mais moi, je pense que vraiment, organiser, ça ne va pas être facile. Mais est vraiment, moi, je reviens aux 2 milliards de dollars chaque année. 2 milliards de dollars, vous une banque d'investissement, vous def demain ça vous permet de faire da retour c'est un euh, désir légitime ngen euh, donc retournez euh, retourner parce que vous aurez réalisé quelque chose mais li gens di gagné fi, go mene man non seulement du fait ay mortgage mais mën tabax donc affaire bi c'est c'est très compliqué c'est très compliqué et je disais qu'il faut une réflexion poussée am ngen ay financier parce que faire ce qui est extraordinaire c'est que de nekk kuréel ba nga il y a non seulement bon c'est la Tijania mais il y a beaucoup de sensibilité que ce soit politique que ce soit euh, il y a beaucoup d'experts, de, vous avez des financiers, vous avez euh, des gens de tous les niveaux. Et je pense que vous devrez peut-être vous rassembler, bien sûr, certes, pour euh, donc faire vos, devoirs religieux, mais aussi vous pouvez élargir votre, donc élargir sen, wartan, pour investir pour la ne de ne pas être l'otage de vos familles donc, moi, je pense qu'il faut voir avec les financiers qu'il y a. Il y a des financiers qui il y a des experts comptables, il y a des économistes. Peut-être que nous, nous avons xalaat ba nga xamné moy gëna lew man lima leen di mëna wax pour que lan ngeen mëna pour pouvoir vous en sortir mado mën pas participer fofu ci limu wax man lima gëm moy bo xassé ba immigré ba nga ba nga ba nga immigré fofu nga dëkk ndaxte fi nga xamné fa nga dem sëyi am fa say doom jënd fa kër mhm. xale yi nekk xale nar a jàng xam nga ba màgg mhm. yow foofu nga dëkk mhm. waaw man du ma ne par exemple damay ba fii du ma dund damay dem tabax benn château Sénégal xam nga wala tabax loo xam ne man dëkkuma fa il faut fu nga nekk ak say doom mu nekk benn environnement bu baax boo xam ni xam nga ku xale yi dinañu mën a épanouir nu mu neexee parce que xale yi tamit quoi qu'on immigra immigré dafa xaw a compliqué parce que boo xasee ba jur doom si dëkk boobu rek données dafay changé mm-hmm. ndax tey ñun lu ñu fi téyee bu doon ñun rek la ñu ñibbi mais suñuy doom naka lañ leen di def mm-hmm. donc c'est difficile man li may wax rek mooy a ah mun nga am sa kër Sénégal mais tam boo tabaxee sa kër xëy na nga luyee ko wala xëy na sa rakk dëkk fa wala sa mag dëkk fa mais yow boo fi defee trente ans wala vingt ans nga ñibbi parce que mun nga génne ko si kër gi mm-hmm. problème la au moins man lima wax moy nga jënd sa kër fi fi nga nek mhm. sa njabot au moins investissement la ci yow xam nga donc bës bo démé ba nga bëgg ñibbi su la nexé nga jaay sa kër wala nga bayé ko xalé yi yow ngay dem di dikk man mhm. gëwuma ni damay damay ñibbi Sénégal définitivement mhm. ndax té sama njabot fi lañ juddo fi lañu nek nekk waaw donc xeyna na man ñibbi def 6 mois Sénégal dellu si def 6 mois ndax xalé tam bu ñu maggé ba dem ba am jëkkër am ay doom dañ lay soxla xam nga yow tam léegi nga soxla ñëw pour ñëw faju ci donc c'est compliqué soo xasee ba wane gannaaw rek yaa ngi ñëw fii yaa ngi jàng wala yaa ngi am sa business yaa ngi am sa teraanga mënuloo mënuloo xëy rek ne damay ñibbi noonu donc fii nga dëkk donc boo xoolee sa genn wàllu àdduna yëpp fii la nekk donc yow fi nga fi nga xam ne fa nga dund say doom man pour man fii laa war a jënd kër ndax fii la sama njaboot nekk Sénégal soo fa jëndee kër tamit boo ko luyee duñ la jox des fois sa xaalis doo ko jot wala nga ne axaar ah, mbaay sama sœur dëkk fa boo ñëwee mënoo ko génnee si kër gi léegi c'est compliqué

yi tuuti rek ci li eh, soxna Rambato doon wax sànq eh, ma def benn publicité ma pare ma jaar service commercial. Mm-hmm. Eh, Fongat les Sénégalais de la diaspora dañu dajale fii la juddoo ci Washington dañu dajale ne bon comme ni mu wax sànq les deux mille milliards yi nga xam ne ñi ngi nekk di ko di ko envoyé chaque fois dañ ci génne tuuti jéem a dajale créer investissement. Euh, macha allah yàlla def na biñ ko commencé ak léegi di ci nekk on a plus de six cent sénégalais bien que diaspora bi ni fi nekk di génn si sénégalais yëpp wax nga ko sànq sax toll na si trois millions mais toujours comme am na fu mu commencé ñu ngi jéem a euh, dajale xaalis def ko ci benn bank banque euh, mu servir de garantie bu ko defee ñu am ay prêt mën a investir Sénégal bu ko defee ñu mën a delluwaat ci mbay mi ñi xale yi jël gaal gi mën ñu mën leen jox seen seen seen wàll seen chance ñu trouver ñu trouver liggéey et que euh, mi ngi avancé am na carte diaspora une carte bancaire boo xam ne ça a été approuvé par Visa et la BCEAO. Euh, dama doon laaj docteur Rama euh, le fait que à travers ses œuvres ak moom dimina ni mu ni muy comporté woo da nga niru ku jege lool sa culture ak sa tradition. ma la doon laaj ndax loolu c'est because you are a liberal or uh, <laughs> what is it? Lan yàlla bu lebu oui la ma yaakaar daal lebu la ma bari la ma jógee oui effectivement euh, boo lire le sagaro Ni lire le sagaro dañ ne ma mais yow dafa ma ne musuloo jógee et en fait nous qui sommes partis longtemps dafa mel ni que suñuy souvenir dañ koy gelé mhm. dañ koy dañ koy dañ koy glacé mhm. dem ñëw dégelé ko mu nekk intact mhm. léeg-léeg sax ñun ñu par exemple man lébu yu may làkk ñi xam ne musuñ jóge bari ñi du ñu làkk boobu lébu parce que ñoom seen lébu dafa évolué ça a été infesté par le wolof alors que moi mon lébu le lébu que je parle c'est le lébu qu'on parlait il y a cinquante ans et il en, de même, il en est de même pour d'autres personnes de Barnier, par exemple, ou de certains villages qui sont partis il y a longtemps. Moi, je tiens, je tiens à ma culture. Mm-hmm. Je ne même pas que je fais un effort, je suis ancrée. On remercie beaucoup mon père parce que il a toujours voulu, bon, il était politicien, il était député maire, même conseil territorial, mais il n'a, mais euh, Moussoul de Dakar, mon, toujours barnier le de au milieu du village avec ses sa famille avec euh, donc ses enfants. Et d'où, même vous faites dans des écoles euh, comme Saint-Jean d'Arc, ou Notre-Dame, on a eu cette chance justement n'est que toujours dans les deux milieux, le milieu assez élevé mhm. et puis le village. Euh, ce qui fait que, bon, parce qu'on a toujours tout partagé. Son papa, il de fait une maison avec donc pour ses neveux, il a élevé tous les, tous les fils de ses sœurs Molenia. Donc on a été élevés dans une maison où à l'heure du repas, on remuait la cloche pour que tout le monde vienne. Écoutez que cloche bien ramener que le repas est prêt. Donc c'est une maison où il y avait peut-être, je sais pas, une cinquantaine de personnes. Et nous, on se retrouve toujours. chaque dimanche, on, est à Barni, dimanche Goudiotte. Nous à Barni et c'est là qu'on se ressource pour euh, moo ñu neex foofu la bëgg et euh, et euh, et je pense qu'il faut il faut s'accrocher à sa culture. c'est mhm. très important. C'est très très important. Il faut s'ancrer. Mhm. Alors bon bon par exemple les enfants j'essaie avec la fille Hélène Barnier les garçons me disent mais aussi une maison familiale qui ngi Barnier mais ñun dëkkuñu Barnier une maison familiale <laughs> voilà c'est ça mais moi je pense que nous nous du coup, c'est un mot que je lise pas en général parce que bon je pense qu'on ne doit pas on ne doit pas loolu la de coup de la forêt rawe parce que par exemple boo Cameroun boo par exemple euh, Gabon euh, boo demee nous sommes seen kër bi gën a rafet euh, pulaar yi ñu koy par exemple à Matam c'est un village qui est parce que une fête yëpp muy mariage muy baptême lo am position position li ngay def lepp lu am solo ce village koy def donc ñom seen village seen kër yu rafet yi comme li ngay gis Almadies ñom seen village ay nek alors que euh, au Sénégal dans le on a tendance nit ñi bo démé village ci àll bi dara amu fa da nga euh, té euh, ña fa joggé ña fa bàyyeekoo ñu ngi Dakar tabax lu nek seen village dara amu fa dara amu fa motax amna ñuy am ben ki lu daan gestu c'est-à-dire di fatelu fi nga joggé mhm. li nga mhm. am nga am xolu yóbbu ko fi nga joggé mhm. bokk ak say mbok mu nek seen fierté et donc je pense que les Sénégalais doivent retourner à ça je, euh, doivent retourner à ça je suis allée demna def ben dédicace à Ziguinchor il y a quelques années mais j'étais étonnée j'étais étonnée euh, euh, que bon, les cadres euh, casamancés, comme dans toutes les régions du Sénégal, ont fait très peu pour, euh, pour investir dans leur, dans leur ville d'origine. Parce que une fois, je suis au décès de mon frère aîné, qui était un très grand professeur agrégé, et il y a un des qui nous cette maison nous interpelle tous parce que vous faites que nous li ñu am dañ ko indi fi bari na changé et je pense que ça vraiment il faut que les cadres y pensent mënuñu lu ñu am yóbbu ko parcelle yóbbu ko qui parce que parcelle ou qui et cetera fi ñu dëkk mooy si seen dëkku cosaan ku nekk li nga am bo defee si dëkku mais Sénégal yépp ay baax du gouvernement mo war def mais les Sénégalais euh, ils ont ce problème dañuy wan gannaaw euh, am na sama ben jànq bu doon sey ma dem village am sel mais man dama tid ma traversé village mais tout est sec dara faut fa te les cadres ki cadre ya fa jóge ñu nga fa parce que wa Allah bi rek ñoy ñoy jang ñom ñoy def ay doctorat légui ñoom am ñoom euh, les les les enfants des des des milieux éduqués ils font le master ils s'arrêtent mais les docteurs, foo mm-hmm. gis mu am doctorat mu ngi jóge ci àll bi mais mm-hmm. une fois qu'ils ont réussi ils tournent le mm-hmm. dos à leur village tournent le dos à leur village bon il y a parfois des croyances qui pensent que, bon, quand tu retournes dans ton village, vous investirez, etc. Mais bon, euh, je ne sais pas vraiment. Je pense qu'en mm-hmm. gestu, gestu, mm-hmm. Euh, la nga xam ne ñun ñëpp war nañu ko war a mën a euh, war a mën ñun dal bari ñi lañu am baax ñu fonk lu ñu am mm-hmm. yóbbu. <laughs> macha allah macha allah. Pape nee na ay lebu lañu piir piir sax <laughs> salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Yaba Kumba ah maa ngi leen koy delloo kontaan yéen kontaan si waxtaan bi xam nga ñun lebu yi rek ku ñu laal dañuy kontaan <laughs> waaw man vraiment dama fier trop ci moom dama kontaan trop ci moom parce que euh, Madou mm-hmm. retour dafa am solo trop retour dafa am solo nit ki looy mhm. séddale na nga sédd ëllëg parce que fu mhm. ñu jógee rek dañ fay delluwaat mhm. moo tax buñ ñëwee jël yëpp basé ko ci fii rek erreur dinañu daal te te te te te retraite ça se prépare lu da ngay xëy tey rek ne damay dese deux ans trois ans damay jël sama retraite dama koy préparé no kooku ay ati at nga koy préparé danga koy préparé ay ati at te ñuy def suñu xel aussi si retour dafa am solo fa ñu bàyyeekoo nañ ci def suñu xel fii lu neex neex neex neex fa ñu bàyyi ko moo ko gën bu fekk ne dañoo mhm. ñëw jël yëpp def ko fii boo mhm. liggéey bi nga boo delloo di nga mhm. mere ku la deful dara loolu lu am solo la même bu dul benn nga am ko fa sax nga am sa retour c'est très important te man vraiment Seck Wassour dama kontaan ci moom xam nga comme man tam lébu laa sekkeen sekkeenu mbaaw laa dama kontaan trop ci moom vraiment ndax dafa dafa wane rek moom li mu nekk euh, dafa fier ci li mu nekk te loolu dafa am solo nit ki da ngay fonk sa bopp da ngay fonk sa bopp ak loo mën a doon da koy fonk nañu fonk suñu nañu fonk suñu Sénégal ndax suñu Sénégal ñun ñoo ko mën a yóbbu fu mu war a dem mhm. mais bu fekkee ne nu ñu am dañ koy yemale fii ñu nekk nii boo léegi bu ñu delloo dañ mere mais nañ dem saraxole nekk seen dëkk mhm. seen village ñoom boo fa demee da fii mhm. am na ñoo xam ne dañuy rus sax ne dëkk ñi nekk Dakar dañuy rus seen mbokk yi bu ñu fa ñëwee tellement que dañu defar seen dëkk ci kaw te loolu dafa am solo ñoom rek ñoo ko fi def ak couleur yi Mm-hmm. ñoom xaaruñu kenn si dara dañuy defar seen dëkk defar seen kër boo fa demee lépp moo fa am ñun ñu ñuy xalaat loolu aussi nañ ko xalaat c'est très important loolu laa si doon am na wu leen participer vraiment kontaan naa ci waxtaan bi di gërëm ki muy dëkk war a gërëm mooy suñu wasila suñu sëriñ sëriñ si dax médecin ak soxnaam soxna ma jigéen ñu ngi leen di gërëm vraiment di gën a kontaan si ñoom ndax ñun lu ñu am rek fii Amérique bi rek mun wax ne yàlla ak ñoom ñoo tax ñoo ñu jàppale. bu ñu fi mën ñoo ñu jàppale bu ñu amee doole yenn ñoom ñoo ñu jàppale. bu ñu seetaanoon aussi dina xaw a metti suñu. Mm-hmm. vraiment ñun am nañu chance boo xam ne vraiment ñu leen di gërëm ndax liggéey bi rafet na yàgg na te yéen ñi nekk ci panel bi yéen ñëpp lu mm-hmm. nekk lu baax lu nekk yéen a koy def loo xam ne lu rafet la. man vraiment damay kontaan a chaque fois bu benn émission ñëwee. bu ma dul mm-hmm. participer sax mais da ngay kontaan. jërëjëf soxna si jërëjëf soxna Rama vraiment. jërëjëf kontaan na merci. jërëjëf yaa maam Kumba dafay nekk toujours plaisir di la am ndax yéen tamit yéen a ngi sunu yéen a ngi du ma wax ginnaaw yéen a ngi ñu jiital di ñu euh, euh, dooleel bu baax a baax a baax donc ñu ngi leen di sant di gërëm mais dafa mel ni Muriel dafa am ah, question Muriel Bismillah Mimi. oui oui maa ngi ñëw léegi rek may ma deux minutes Muriel Bismillah. oui euh, maa ngi nuyu ñëpp vraiment c'est un plaisir donc di déglu tey suñu sœur Ramata c'est vraiment un plaisir. Nous sommes en train de prendre des notes aussi. Et à chaque fois, bu ñu duggee ci ligne bi dañu jàng lu vraiment Mado merci merci à Pape je je maa ngi lire tuuti extrait ou livre bi et suis mhm. tombée sur le passage de mu voir wax euh, affaire ou euh, sëñ Ahmed ma bu ko wax rek peut-être qu'elle est pas au courant mais sëñ Ahmed mingi mingi bolé Tijani duñu ci boole ñun ñi nga xamante ne euh, ay catholique lañu mm-hmm. parce que mu ngi ñuy gestu mu ngi mu ngi invité ci lu euh soxna ma jigen aussi you know à chaque fois elle est en contact permanent avec la communauté euh, mm-hmm. catholique sénégalaise ici c'est c'est vraiment un plaisir so ma koy wax rek euh, ñu ngi déglu je vais finir le livre bu sobe yalla xamna bu ñu amee question nous allons toujours les relayer à Mado wala you know à à soxna ma comme ça mu mën ko euh, ñu mën mu <laughs> merci merci merci en tout cas pour l'invitation <laughs> Derrière merci beaucoup Muriel euh, soxna Rama kooku doon wax legui ni Muriel la amna aussi sunu yaay ju bax ju nek fi ak ñun di maman Elise Brun ñu nuyu bu baaxa baax dañu nek ay membre euh, de la communauté chrétienne Masha allah waaye moo xam gamu la mo xam convention la mo xam lepp lo xam ne sunu pap Ahmed mu ngi koy woote ci dëkk bi ñoo ciy la preuve en est que premier gan yi nga xam ne tout le temps ñoo ñëw ci programme yi jóge aéroport

Dylan Santo vraiment merci beaucoup euh, euh, hashpap Hashpap Gay? alaikum, alaikum Salam alaikum, alaikum, alaikum. alaikum wa rahmatullah vraiment euh, je suis très très très très heureux aujourd'hui parce qu'en en tant que fils de de de poète d'un écrivain

Euh, bëggoon am contribution tuuti par rapport à immigration comme ni ko soxna Khady doon waxee sànq te euh, aussi expliqué ko moi je pense que le problème majeur de l'immigration c'est que dañu amul éducation avant immigration dañu war a éducation c'est-à-dire que balaa ñu di génn la ñu a définir la ban ban genre immigration la ñu bëgg def et malheureusement par exemple da ngay gis ñoo xam ne dañuy génn pour le plaisir de génn wala peut-être contrainte sociale, yi ñoo tax ñoo tax ñuy génn mais on pense on on on

Euh, ñoom xëy na pareeguñu pour euh, pour pour accueillir ñu li nga xamante ne ñun loolu lañ yaakaar loolu moom moo fa nekk parce que soo nekkee fii liñ lay wax loolu ngay jël te soxna Xadi Ñang waxoon ne dañ fi am ay doom jël nañ leen kër ñun ñooy Sénégal yi ñun ñooy africain mais suñu doom fi la ñu juddoo nationalité fi la ñu yore ndax dañuy accompagner xale yi ànd ak ñoom dëkk ndox ñoom continuer wala ñu dañu bëgg ñu bàyyi fi xale yi ndax xale yi bëgg na ñibbi bu ñu leen bëggee yóbbaale dafa naan question la boo xam ne xam naa ne dama koy tënk noonu rek pour soxna si bu fekkee bu kii bu fekkee day rapport bu ko mënee yóbbaale rek ci ci ci ci ci ci si tëjëm incha allahu rabbi naa waxtu yi jot na ba noppi waaye bëggoon naa question yi gën a yaatu mais comme nit ñaa ngi doon kii rek ba tax ñu bàyyi woon pour gars yi gën a laajte daal euh, ñu ngi koy euh, xaw yemal foofu di koy sant di koy ñaanal yàlla bu baax yàlla na yàlla guddal fanam wéral ko wéral ay cëram ak moom ak ay njabootam yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah je voudrais d'abord commenter euh, mm-hmm. euh Mireille mm-hmm. ak euh, euh, bu avec vous, madame Brun mm-hmm. la communauté chrétienne est une communauté exemplaire xam dara école chrétienne pendant plus de dix ans j'ai fait dix ans d'internat entre l'Immaculée Conception de Rufisque Sainte Jeanne d'Arc et Notre-Dame léegi euh, jàng naa lu bari ci ñom euh, parce que jàng naa euh, donc jël naa jéem lu bari des qualité Et dialogue islamo-chrétien bi ñuy wax je pense que Sénégal c'est un exemple de coexistence pacifique entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane ni ñu nek rafet na paak bu paak bu jotee ñu ñu ñu ngi jox suñuy ngalax léegi mhm. tamit bu jotee ñu ngi jël suñuy jigo suñuy suñuy voisin chrétien mu nekk lu rafet a rafet vraiment te ñu ngi koy rafetlu te je vois que li nekk Sénégal moom ngeen continuer fii léegi Assane comme ni ma waxee affaire u dilem boobu est-ce que fii la ñu dëkk est-ce que fële la ñu dëkk xam naa ne yéen fële ngeen dëkk mais seen doom mun leen ci dara am na ña nga xam ne fii la ñuy des am na ña nga xam ne ñibbi parce que Sénégal tam bu fekkee da nga am certaines compétences pointues du toujours que nga ne que les salaires ne sont pas bons am na ñu bari ñi nga xam ne liggéey nañu Amérique après am nañu ay liggéey yu baax Sénégal ak bi daal affaire bu chance daal. ce qui est sûr c'est que bu fekkee da ngeen choisir émigrer seen doom quoi qu'il en soit ay américain ñu mais am na la nga xam ne. que yoo leen mën a sauver seen diine mën ngeen ko sauver te loolu ci ci ci ci ci bu ñu nekkee xale xale bu xale yu tuuti ngeen koy ngeen ngeen koy ngeen koy ngeen koy liggéey daal waaye man dema naa dem naa ba ba soo benn doomam ne dafa say saay saay dama ne ko boo boo mokkalee Fatiha ak falaxe ak naas yi ma la dix mille mm-hmm. boo mokkee kursiyu moi, je mets les 50 000. Bobo, que moi, mets les 25 000. Mais ça a marché. Uh-huh. <laughs> Il faut trouver une solution. Mais nous savons les potentialités, le continent de l'avenir, Afrique. là. Les yi qui nañ ko ñu ngi Afrique les arabes nous ngi pour donc en fait l'avenir c'est chez nous que ça va se passer et peut-être que nous, nous allons bâtir euh, des pays. Vous savez, la Corée, Bodemé Corée, Mandem la Corée, je suis partie avec le président Wad à Corée, il recevait le prix euh, à l'Université des femmes. Mais Corée, euh, qui Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, que Corée, moom ngi fàttali qui nekkee allé am 12 ans dafa daan dem di taxani il mooy wuti du bois. bois mhm. mort pour yaayam tara mais boo góore gisee Corée maintenant boo c'est Séoul mais Séoul c'est comme New York. Parce que la différence, différence entre les Asiatiques et les Africains, les Asiatiques ils gëm sont pas ñun nag ils ne di pas les Asiatiques de gëm seen bopp dañu gëm sen et donc tant que ils ne sont pas dem fenn. alors donc euh, c'est ça le continent de l'avenir c'est l'Afrique moi j'y crois parce que la population est jeune la population est jeune euh, ailleurs c'est le déclin parce que nous euh, donc, euh, euh, les choses se passeront en Afrique et les gens se positionnent. Et ce serait dommage que nous avons richesse, que nous n'ayons que finalement euh, à la traîne et que nous avons une nouvelle colonisation. Les Occidentaux, les Asiatiques, nous avons comme compris, nous avons Voilà. tabarakallahu macha allah li ñu naan lu neex du doy xam naa dañu koy téye ni rek inshallah allah ba benen parce que ba waxtu wi eh, tànc nañu macha eh, vraiment eh, man damay wax franchement en plus d'être aussi émerveillé macha par vos romans wax yalla je suis très ébloui de par votre éloquence na defal la jàmm. vraiment Mado xawma ma la lay remercier parce que fi mu nekk nii man dal duma kenn d'al, li ma len wax moy sama expérience pas en tant que chercheur pas en tant que en tant que une femme. Euh, qui suit son mari, qui a été fonctionnaire mais mm. qui a suivi son mari, qui a eu la chance d'aller dans beaucoup de pays africains. Limagis ma gis par devoir de mémoire ma bind ko yàlla ma et euh, donc euh, j'espère que notre situation sanitaire va change changer mun a ñëw def dédicace remercier sëñ Ahmed Sy a fay mm-hmm. mais par exemple périple bi def chaque année corps def 17 mhm. 000 kilomètres di États-Unis rien que pour donner l'espoir parce que mhm. c'est le plus beau mot du mhm. dictionnaire après l'amour c'est l'espoir l'espoir aux talibés qui sont se dans cette Amérique dans la glace dans la neige dans le froid mais nous voulons que ce leur espoir renaît leur comme comme on a fait. et je vous remercie jërëngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo ITFA Islamic Tidjaniya Foundation of America rajo ITFA doon rajo bi nga xam ne dafay fas yéene ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo ITFA yamu ci dafay ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo ITFA mu ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo ITFA daal rajo bu wóor tey leeral